سبحان الذي أسرى بحبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل الرجب سحر الله وصحبان سحري ورمضان سحر أمتي wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa xadimi Seex Ahmad Bamba alesi qaal bushra lana qad ataana aljuudu walkaramu lama staxallat xalayna lashhuru alxurumu waxal aydan wa huwa allazi jaxala xusna al adabi yuxfi jacaalatan wa qubxa nasabi mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan di sant sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaanal sëriñ Muntaxa sunu boroom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba li mu yéenee liggéeyal lislaam lépp ñu ànd ko ak moom di nuyu ñi nga xam ni ñooy kilifa yi nga xam ni ñoo teew fii ci baas bi bu ñu ci limee ci wàllu ñi nga xam ni ñoo jiite jàkka ji sëriñ Moustapha Diop day yóbbaale ñi ci des ñëpp bu ñu tuddee ñi nga xam ne ñoo jiite wàllu pàkk bi muy président pàkk bi ñu tuddee Ibrahima Diouf day yóbbaale ñëpp kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bi ak ñi ñu ko àndal ñëpp di leen baalu xaq te di leen baal xaq tey ñaan yàlla lépp loo xam ne ñaam nañ ko ci yàlla na ko suñu borom nangu gannaaw loolu xam naa wax ji du gudd ndax càkkutéef la goo xam ni xëy na am na ñoo xam ne ñoo ko daa taxaw waxtu wii bi yàlla dogalee ba ñooñee ngant dab leen ci lañ ma wax ni ma suñu sañoon nga sàññ ci ay kàddu ci waxtu woowee loolu nag duma leen ko mën a bañal ndax dañu koy royee ci sëriñ bi bi nga xamee ne lenn ci ay taalibe daje nañu wax ne ko day dañoo bëggan nga defal ñu ay taalif yoo xam ne day jël ci wàllu teggin la mu ca tontu rek moom laay daal di indiwaat fii dafa waxaat ne wa haza wa innil yowma soo ijaaba baxdal muridina sawil inaaba xat talamu xat talaboo nasman xawaata adduba liyata addabu wasaaka wajaba mu mel ni kon lu baax saa buñ ko sàkkoo ci yow la cee sa warugaay rek nga def ca la nga xam ne moom nga ci man ndax buñ ko sàkkoo ci yow rek warteef la war lay doon moo taxam sëriñ bi wax ne wasaaka toloolee ñu sàkk woon ci man day wajabaa dafa war maanaam lu ma war la dafay mel ni bu càkkuteef gi amee rek war ga day daal di nekk farata donte xëy na lott nañ lool ci taxawee ña nga xam ne ñoo daa taxawe waxtu bii nañ ko daa taxawe lott nañ ci ci yaari anam lott nañ ci anamub ñoom nañuy waxtaane xëy na dina wuuteek ñun ni ñuy waxtaane waaye lott nañ ci anamub itam baaxoo wuñu di waxtaane jataay yu mel nii kon bu boobaa damay dogal ngant ci ñi nga xam ne ñu ngi dégg sama kàddu luñ ci dégg lu wuuteek nañu ko daa dégg ci ñeneen rek ñu jéggal ñu te xam ñu lu jub rek lañ ci jubluwal la nga xam ne nag moom lañ taamu wan ngir bëgg cee waxtaan ak yéen benn tomb rek lay doon xëy na lu koy tëj mooy ab soññawaat boo xam ne dinañ ko tàmbalee ci suñ bopp jëme ko ci mboolem ñi nga xam ñooy taxawal bis bii ak ñi leen ciy jàppale tomb bi nga xam ni moom lañ bëgg a waxtaane tomb la boo xam ne bu itteel jamono la waxtu wu nekk te mel ne luy tumuraanke la te mel ne bi ñuy wax nit te nite ga di dëgg loolee mënta ñàkk ci moom mooy ab yar saa boo xamee ne doomu aadama bi manqué na ab yar bu boobaa leneen lay tudd waaye tuddatu nit wolof dina koy wax dangay dégg mu ne danga reew ba am lum ca toftal loo xam ne wóote naa nit kon doomu aadama bu ñu koy tudde doomu aadama ab yar rek moo tax xëy na bu waxtaan wi guddee dinañ leen leeral di leen won ni lépp loo xam ne doomu aadamay gànnaa yoo na ko lu dutub yar loolee maneef na ko booleeg moom toroxal waaye amut benn doomu aadama boo xam ne maanaam gànnaa yoo na yar ñu booleeg yar boobee toroxal loolu du am ci kaw suuf doomu aadama danañ ko booleeg alalam toroxal danañ ko booleekub taaram danañ ko booleekub juddoom danañ ko booleekub magam lu nekk danañ ko booleeg doomu aadama toroxal waaye du ngeen dégg mukk ñu ni booleel na nit ka ak yaram toroxal ndax ab yar day loo xam ne mooy doomu aadama bu ko doomu aadama xaseen matale rek dootul def lu ñee lu def ko yedde daanañu wax ni bariwaa na lool ci waxi Serigne Souhaïbou bu yal na ko sunu boroom gërëm te ci barkeem daana wax ni day ab yar kenn du ko dugg ab ak reewande kenn du ko duggaale àjjana mooy kon loolu mooy ku réew du dugg àjjana ndax benn la tax ten du ko dugale ak ajjana mooy ajjana ab ak yaree du fa ak yaree du ko dafa amut ajjana ak réewande amu fa benn comme doomu aadama bi ala kulli alin fokk mu jaar ci ñetti étape yoo xam ni fokk mu jële fa ab yar wala lu dul loolu rek wal xiyaasu billaahi dafa nare dëkk geneen kër gu dul ajjana doomu aadama bu fekkente ni bii ko sunu borom nar jéggal la fokk mu boole koo moroomum doomu aadama mu yar ko loolu moo tax sunu borom di ñu sant waxtu bu nekk ñuy yar njaboot gi nga xam ne moom lañu ñu booleel al yu ay hadis yu bari rot ci waaye dinañ ca gàttal ci ni nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka wax di wax ne kenn ku ne ci yéen ab sàmm nga ëllëg la nga doon sàmm dañ la ko laaj dara jiituwuta njaboot ga kon képp koo am ne am nga njaboot war nga leen a jàngal yar leen ndax yar boobee bu rëccee ala kulli bu dee ko sunu borom nar a dimbali fokk àdduna yar ko te yarub doomu aadama moo gën a sedd yarub àdduna bu yàlla dogalee mu rëcc ci ñaar yooyu ala kulli alim fokk bàmmeel yar ko bu dee ko sunu borom nar a dimbali la te yarub bàmmeel yal nañ ci yàlla musal kon li sëriñ soxaay bu Mbàkke daa wax ne maanaam ay reewande kenn du ko duggaale àjjana loolu kon ay tegtal yu wér ngoogu ab yar itam sëriñ bi di wax ni lépp loo xam ni nit kaa ngi koy wut moo xam mu di topp yàlla moo xam lu muy faggu ci àdduna la te ab yar gunge wut loolee du ko am wala bu ko dee am amin wadu rafet te bu ko amee itam du yàgg fa moom is kullu man raama bi xayri is kullu man bi xayrihi raama tibaa fa innahu yaxrama fawsan wa intifaa dellu waxaat ni ay teggin mooy li nga xam ni mooy njariñal ñaari kër yi muy àdduna ak alaaxira comme ni ñu ko waxee ci ginnaaw muy nit bu naree jariñu ci àdduna fokk mu amub yar waaye bu naree texe ëllëg yowmal xiyaamati fokk mu amub itam wa huwa fi daarayni xayru kansi wa xayru mahtazabihi zol hizzi zo hizzi mooy ndàmb li nga xam ni maanaam koom mi nga xam ni mooy ngën gi koom ci àdduna waaye itam mooy tedd nga gi nga xam ni mooy ngën gi tedd nga ëllëg yowmal xiyaama kon ab yar lu mat a sonne la ñu di ko sonne ci njaboot gi di ko sonne ci sunu bopp di ko sonne ci képp koo xam ni xëy na ay responsabilité mi ngi ci sunuy loxo ngir moom teggin moom yi dañoo wax ni dafay leeral ab xol ba nit koo xam ne maanaam gis na ku yaru rek daf koy daal di sopp loolu résultat bi moom képp koo xam ne maanaam nekk nga ci biiru wi yaru di nga gis daraja ja nga xam ni moom nga fay am wuuteen ña nga xam ne dañoo aw yeneen yoon loolu ab yar moo koy def ci doomu aadama te noonee nga xam ne na lay leerale ab xolal itam na la koy jigéen ña la àggana mooy comme liñ doon wax rek li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani wa yujibul madaxalalal jiyaani kama yubaxidu anil niiraani sëriñ bi dafa wax ni ki nga xam ne dafa yaru sun borom dafay leeral ab xolam ba doomu aadama boo xam ni bëgg na lu baax rek bu ko gisee ala kulli alin fokk mu sopp ko te noonee muy leerale ab xole tam noonee la koy jigéen ñale àjjana te dafay waree itam aw tagg ca dëkkandoo ya dara dàqut nit koo xam ni fuñ ko tudd lay ñaareelu turam mooy aka yaru wala aka bari kersa ndax kersa ku amutub yar mënu koo am kon saa boo déggee ñu tudd tuuru nit wi nga xam ne moom lañ coofli woon cam noppam tofal ca maanaam aka yaru wala aka bari kersa kookee mooy nit ki nga xam ni moom lañu soxla ci pénc mi amma keneen ku moom bu nekkee ci pénc mi itam dafay lëjal pénc mi rek waaye du dara loo xam ne mën na koo sottal ci pénc mi kon war nañuy soññ waxtu wu nekk njaboot gi ñuy góorgóorlu ci di xàmmee seeni kilifa ak ñi nga xam ni ñoom lañu maaseel ak ñi nga xam ni ñoom lañuy ñuy dëkkal seeni dëkkandoo bu ko defee bu ñu ko doon tënk rek ci li nga xam ni maanaam mooy ab yar dañuy wax ni yoonu teggin moom ñett rekk la dañuy wax ne boo jëlee sa yóbbal fas yéene tukki ni damay dem dëkkub teggin ñett rek nga dab ci yoon wi ñett ñooñee ka ci njëkk mooy dinga dab ci yoon wi xale boo xam ne yow yaa ko mag waaye boo doxee tuuti di nga dab koo xam ne moo la mag waaye boo doxee tuuti di nga dab sa moroom ñett ñooñu rek ñoo nekk ci yoon wa bu yàlla dogalee nga dab ki nga xam ne yaa ko mag na nga ko yërëm waaye bu ngeen àndee ci yërmaande joojee itam moom itam nalawet ndax yéen a ngi jëm ci koo xam ni moo leen mag bu ngeen àndee kookee itam bu ngeen doxee tuuti na ngeen jàpp ka ngeen di dab def ko ni seen bopp buñ ko defee rek pénc mi jag moo tax sëriñ bi di wax ne tarixatul adabi rahmatu saxir kal abbi wal ummi wa tawxiril kabir yoonu teggin daal soriwut dëkk boo fa dem daal ñett rek ngay fekk ci kaw yoon wi ki nga mag ki la mag ki nga maaseel boo yërëmee ki nga xam ne yow yaa ko mag respecté ki la mag jël ki nga maaseel def ko ni sa bopp teggin ndey daal di mat moo tax mu ne wajaxlu mislika ka nafsika sawa li wati xaalixin xalal xar sistawa mooy ki nga xam ne moom nga maaseel nga def ko ni sa bopp ndax nit ñépp noo xam ne na la bëgg de àndee ak nit ña maanaam népp lu mu bëgg nit ña def ko ni na ko def nit ña boo àndeek nit ñi ci ànd bu rafet nit ñëpp ànd ak yow ci àndin wu rafet boo àndeek ñoom ca safaan ba itam wala xiyaasula ñu ànd ak yow ca safaan ba waaye bokk na ci liy dëgëral ay teggin itam lépp loo gis ni nit ki mën na caa jariñu rawatina gone yoon woowee nga teg ko ca ngir mu jariñ la bokk na ca lu mel ni daje bii ngeen def tey ndax daje la boo xam ni yéen a ngi ko def ci ni ma ko ubbee ci weeru rajab rajab nekk ci ñeenti weer yi nga xam ne sunu borom daf leen a wormaal ba waxan yonente bi sallallahu alayhi wa salaama ni ko saa bu ngeen dee xeex ci toolub lislaam bii ba yenti weer yooyu yi teru na ngeen wéer ngànnaay yi ba weer yooyee dee weer yooyee rajab da cee bokk moo tax ngeen di dégg borom xam-xam yi da wax ni rajabul fardi ndax ñetti weer ya dañoo toftaloo raja moom nekk moom rek mu weeru mu amaat yeneen ngëneel yoo xam ne itam weer wi am na ko bu ngeen fàttalikoo weer wi ci la gàddaay ga amee wan mooy al isra wal mihraj muy gàddaay googu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defan na ko muy tukki bu woom boo xam ne moom la tukki woon ca suñu borom te bi mu ñibbisee mu indaaleel ñu boo xam ni mooy julli juróom nga xam ne dañuy wax ku ko taxawal taxawal nga diine waaye ku ko màbb màbb nga diine kon sëri ci boo xam ne ginnaaw gëm yàlla akub yonanteem mooy ponk bi nga xam ne moo gën a dëgër ci juróomi ponk lislaam yi ca la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon comme noonu ñu ko waxan ci njëlbeen gi subhaanala si asra ila axiri aaya waaye tam ca la deman ca ngaram gur yi si googee mu gana jëwan yoon eh, eh, sunu borom nga xam ne fa mu àgg sunu borom mel ni mbindeef musu faa àgg ndax jibril mi nga xam ne moo daa jël mission di andi ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam barab boobee nga xam ne fa la sallallahu alayhi wa sallam àggandi déeyaalee borom jibril àggu fa waram xam-xam dañu nett leen bi nga xamee ne moom dem na ba fa mu mën a yem dafa wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fii laa mën a yem léegi nag wéyal sa boroom a ngoogu fii ma toll day bu ma fi dollee benn sebre jëm ci sunu borom dinaa seey ni kawar di seeye ci ab furne bopp sawara yonente bi doon jëlaat nag moom ab doxam jëm ci sunu boroom ba nga xam ne ni ko alxuraan di nettalee fa kaana xaaba xaw say ni aw àddunaa dem na ba nga xam ni digganteem ak sunu boroom moo gën a jige ñaari koj ci xala yaakaar naa gone yi nga xam ne yaroo nañ bawal xala du leen jaaxal mooy li nga xam ne moom lañ daa def nii di ci rëbb ay picc noonu yi nga xam ne ñaari kocc yi noonu la daa jigéñee moom la alquran wax ni dem na ba nga xam ni diggante yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu borom seenub jigéñaat toll na loolu yi mu jële fa itam lëm fa jële woon comme ni ma leen ko waxee muy julli juróom waaye kenn umpalewut ni tam guddi gii muy weer wi ci la sëriñ Muhammadul Faadil ganee jamono muy sagub yoonu murid yépp ndax kenn ku nekk gis na liggéey bi nga xam ni sëriñ Fallu liggéey na ko ci yoon wi ginnaaw ba mu wuute magam ju baax jooje muy sëriñ Moodu Moustapha bi nga xam ni ginnaaw sëriñ bi moom moo dëgëral yoon wi ci yenti pilier sëriñ Moodu Moustapha bi nga xamee ni sëriñ bi jóge na fi mu taawu yoon wi ay waay juróom nekk fi ñu ko fi ëpp ay at nekk fi tubaab yi wër ko ci wet gën gu nekk dafa wax ni moom de lii mu yor li mu koy dëgërale ci yent pilier rek yent keno rek la koy samp keno bu njëkk ba mooy dama koy samp ci xam ñaareelu keno ba mooy dama koy samp cim xel ñetteel ba mooy dama koy samp ci alal ñeenteel ba mooy dama koy samp ci doole muy physique bu ngeen xoolee lépp lu sotti ci àdduna rek loolu yi moo ko sottal waaye nag bu fekkee dañ koy juyale am benn buñ jiital ci ñeent yooyu rek loolee ñuy dox mën naa bañ a sotti doomu aadama lépp lu muy song na ko songe xam-xam waaye bu xoolee ba xam ni lii bu ma ko doon misaal tey dama koy misaal ci lii nga xam ne moom lañu ñu dëpp mu jàkkaarlook ñun xam-xam moo ko liggéey ki ko xelaat waroom xam-xam la boo xam ne bi mu ko liggéeyee ba noppi itam nag dafa jël woroomum xel ni ko nii nag lañ koy jëfandikoo moom liggéey na ko muy xam-xam bi mu andi borom xel mi mu mën koo jëfandikoo waaye liy taaral jotaay bii itam mooy waroom wërsëg yi nga xam ni ñoo indi seen ñaq maanaam kenn kenn ku domp ca la nga yor dikk joxe ci muy li taaral bis bi li taxawal lii nga xam ne itam moo ñu tiim wala ak sees yeeg yooyu waroom maanaam kattan yi ndax yaakaar naa mag ñi ak xiiban yu mel ni man loolu moom lot nañ ci kon yent yu nit di taxawal rek ci yenti pilier yooyu lay taxawe ci ci la sëñ Muudu Moustapha taxawal yoon wi ba ni mu agsee ci sëriñ fàllu yàlla na leen sunu borom fayal ñuy wax itam ni ñuy wax itam ni bokk na ci ay teggin maanaam nit ki mu warmaal ñi nga xam ne ñoom lay nekkal comme ni ma ko waxee woon ñi ko féete mag mu di leen warmaal waxtu nekk ñi ko féete ak ndaw mu yërëm leen ñi ay moroomam mu def leen kem boppam bu yàlla dogalee itam nga nekk ci biiru nit sëriñ bi daf caa santaane loo xam ni waroom teggi ni ñoom ndax sëriñ bi euh, mën naa ne alxuraan sax waroomi teggin rek lay waxal ndax saa bu ngeen déggee mu ne afalan na di wax ak waroom xel yi awlul albaab waroom xel yi mooy ñu amub yar rek ndax doomu aadama bu xamee boppam rek bu xamee boppam rek yaru te nit bu yaroo moom la ñuy waxal mooy waroomum xel ka mën a xam boppam mooy boroomum xel moo tax man damay xaw di dàq léeg-léeg bu nit waxee ni maanaam gëm sa bopp maanaam doomu aadama wërta gëm boppam doomu aadama dafay xam boppam doomu aadama bu xamee boppam lépp loo xam ne maanaam nit daf koy jomb rek dina ko moytu loolu mooy xam sa bopp lii kat bu ma ko naree def te bokk ci wa nangam sàngam wala ma nekk ci barab sàngam lii de lu ma jomb la loolu yi mooy xam sa bopp ndax da ngay xam ne li taxan ñu andi la fi mooy nga tege ci yoonu siraatul mustaqim ndax yaar yoon rek mooy am wa anna haza ziraati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu subula as subul nag mooy weneen yoon tareexun fareexun fil jannati wa fareexun fi saxiir yaari yoon yooyu rek moo aw kon nit ki bu ameem xel dafay topp ci yoon wi nga xam ne moom moo koy jariñ moo tax sëriñ bi di wax ni nit bu fekkee da ngaa nekk ci biir mbooloo nanga nga tànn maanaam tànneef ya nga def leen ay àndandoo isaa kunta fi xawmin fa saaxib xiyaaruhum wala tasxibil arda fa tarda doomu aadama war na fu ñu ko fekk buñ ko laajee ñan ñooy say àndandoo mu tànn maanaam ñu gën wala boog ñan jàpp ni ñoo gën ca mbooloo moomee daje ndax dañuy wax ne boo bëggee xam nit ki bu laajte kii mooy kan laajal kan lay àndal anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi doomu aadama bi moom boo bëggee xam mooy kan rek seetal ka mooy àndal bokk na ci li nga xam ne itam ay teggin dina ko def ci doomu aadama mooy daf koy musal dina muccal diineem moo tax sëriñ bi wax ne isa sixta an taxya wa diinuka saalimun wa asuka mafoorun bu fekkente ni bii dangaa bëgg sa diine ñoŋ te dund dund goo xam ne gu sell ci nit ñi te sab der itam maanaam ñoŋ nga xam ni kenn du ko gàkkal na ngay def daal mooy lisaanaka la taskuru xawratam rahim fa indaka awratun walinnaasi altunu doomu aadama bu fekkente ne bii dafa bëgg a mucc na koy day na koy doy waxtu wu nekk rek sikkus boppam waaye bu mu jéem a luñ ci sikkis nit ñi ndax képp koo xam ne yaa ngi wër maanaam sikkis nit ñi itam boo yëgeeg boo yëgul nit ñaa ngi wër sa sikk di ko tudd waaw laa taskuru awratahum rahim saa boo dee tukki sikki doomu aadama yi na la wér ni boo yëgee boo yëgut doomu aadama yaa ngi tudd say sikk waaye saa boo tudd saa boo dee tudd itam seen lu baax na nga yëg ni boo yëgee ak boo yëgut itam ñu ngi tudd sa lu baax bokk na ci li nga xam ne itam mooy dimbali doomu aadama muy xool ñi nga xam ne dañuy sonn waxtu wu nekk ci lu baax mu di leen roy te bañ a yem rekk ci di leen yéem loolu nag daf ñuy gaar lu baree baree baree bari da ngay dégg ñu am benn émission boo xam ne dañu doon waxtaane menn mag ca mag ña nga xam ne dañoo àndoon ak sëñ bi waaye ñun bu ñu xëysee lay nekk suñ débat ca wax joojee diw ponkal la wan dëgg la ponkal la wan waaye dafa aman lu ko def ponkal la ko def ponkal moom lañ waroon a xool ñun jàngat ca jéem a roy loolee te bañ yem rek ci ponkal la wan ponkal la wan bi sëriñ bi daf ñu koo junj ci waxtu wu nekk di ñu ko jàngal ci anam gu nekk isaa ahjabatka xisaalu imra'in fakunhu saa bu la doom aadama bi yéemee nekkal di moom boo nekkee di moom rek bu yàggee rek la nga yéemu lépp ca moom maanaam ñëw ci yow waaye boo yemee rek ci di ko yéem ci yéemu rek ngay yem moo tax mu ne fakun fakunhu yakun min kamaa yu'jibuk boo ko defee rek li nga yéemu ci moom nekk ci yow waaye fa laysa alal majdi wal makrumaati isa jiata haajibun yu'jibuk saa boo xamee ne maanaam saa bu ñu tuddee karaamaay mag ñi la nga cay doy looroog mooy diw dey maanaam ponkal la wan moo defan li moo defan li bu ñu noppee fosta suñuy loxo loolu yi day am solo la ko ëpp solo daal mooy kenn ku ñu tudd maanaam sa njàmbaar ga nga xam ne séqan nga ko di ko dox ca sa digg ak sëriñ bi am na ay màndarga yuñ ca wone yooyu ñu di ko tànn donte mënuñu koo matale itam la ca ëpp maanaam ñu cay góorlu sëriñ Saaliw waxan na ko doonte maanaam dam mag ñi yombut waaye ku aw seeni tànk yi itam maanaam sunu borom gàttandu la kon yal na nu yàlla di xiir ci ñuy gëstu mag ñi tey roy ca la nga xam ne moom lañ doon def di ko doxal xam naa ni li ma leen waxan ci njëlbeen rek dañoo jël mbir teg ko ci loxo yoo xam ne daf caa xeebu lool kon waxtu wi lu mu gën a gàtt ci moom rek gën ci moom ndax wax naa leen ci njëlbeen ni leen ñi daa taxaw bis bii nañu daan waxtaane mënu ma naa waxtaane waaye tam lii may def akus néew néewaane maanaam ma di ko def ci tànn waaye nag la ma leen waxam rek comme sëriñ bi moo noon bi biñ sàkkoo ci man càkkeef ga day lu war ci man kon bu mbooloo dajee ñëw ni maanaam li ñu ko sàkku ci yow loole day nekk lu war ci man ak lu ma ca lottu lottu waaye dogalal nangante ci njëlbeen ni leen lu ngeen ci dégg lu wuuteeg lañ ñi daa dégg rek na ngeen xam ni kiy wax maanaam foofu fii lam xelam toll ngeen jéggal ko ko bu ma nee maa ngi wàcc sama kàddu kenn du ma xarab waaye bala muy wàcc sama kàddu itam yaakaar naa ne dinaa wax ni bokk na ci liy mayab yar donte maanaam yii mucc nga euh, rëcc na la ngay xool comme ni ma ko waxee ñi nga xam ni yaru nañ wala ñi nga xam ni yaruwuñu nañuy doxale yow nga di ko wattandiku dañoo wax maanaam xakim ba dafa wax kenn ki ñu ko man adabak ana kan moo la yar xasabak kan moo la yar ba nga sell nii mu ne ko man lay damaa nekk nag maanaam ñoo xam ne dañoo réeran may xool nañuy jëfe may jëf contraire ba ca jële maanaam yar bi kon loolu nit dina nekk foo xam ne xay na milieu bu la xat waaye mu fexe ba yaatu fa ndax nam fay doxe la ko doolee ko mooy ab yar lépp loo xam ne doomu aadama yor na ko ci kaw suuf te àndut ko bi yar daf koy ñàkk mooy ni ma ko ubbee woon rek ndax yor ga du yàgg sëriñ bi dafa wax ne dénk naa leen ay teggin fu ngeen ni man di nekk parce que moo leen di bi ci jëme leen ci yool ndax xam-xam bu bari loolu te àndut ak teggin itam wallaay da xëcc rek jëmale ci alkane dañuy wax ne law kaana fi lxilmi min duni tuqa sharafun la kaana ashrafu xalqallaahi ibliisu donte maanaam xam-xam mooy tedd nga gu àndut ak ragal yàlla kon iblis ay gën a tedd ñëpp ndax moo ëppoon ñëpp xam-xam waaye ñàkkub yar moo teg iblis la ko dal ndax ñàkkub yar moo feeñal ak réyam ba sun borom sant ko mu gàntu ba sun borom maanaam xajji ko waaye iblis dañuy wax ni fépp foo xam ne doomu aadama teg na fa tànkam te di gëmu ko fa jaan màttu ko fa iblis su jootal na fa foofee sun borom ci kaw suuf kon mel na ne moom li mu jaamu sunu borom néewaa nit ku koy jaamu waaye ñàkkub yar moo ko xañ lool yi am na fa ko sëriñ mbay jaxate di wax amo bi yaree tax ñu jël nit teg ca kaw di ko naw ñàkkum yaree tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw kon yàlla nañu yàlla musal ci ñàkkub yar foofu lañuy ñuy wàcce suñ kàddu xanaa di sant ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bii di leen wax ni bi ñuy jàng kaamil yi am na fi kàddu gu fi sëriñ Daawuda wax mu xaw ma marqué waaye dinaa dénk ñi nga xam ne ñoo ŋànk bis bi ni leen quantité day amul solo wala quantité bu àndut ak qualité amul solo li am solo mooy qualité dañoo wax ne bi ñuy jàng kaamil waxtu wii daaw baas bi dafa feesam dell ren bi ñu koy jàng ñu mën a konte nit ñi nga xam ne ñoo ko doon jàng waaye téemu lim bañ aman ca mbooloo ma ca bari mbooloo ma am nañ ko ci gën a néewu mbooloo mi te jot nañu bi gën a sell kon loolu la ma leen di wax rek mooy ay nit lépp loo xam ne dañ koo ŋàbb te ŋàbbe ko ñu ngëm-ngëm ala kulli aalin dinañ ko yóbbu fañ ko bëgg a yóbbu alquran joxe na ci misaal ci waa asxaabul kahfi ay gone lañu wan yoo xam ni seen limba limbu niiw la ñi ko alquran waxe sa yaquluuna salaasatun raabihum kalbuhum wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil bi wa yaquluuna sabatun wa saaminuhum kalbuhum ñii ne nag ñett lañ ñii ne juróom lañ ñii ne juróom-ñaar waaye kon mel na ni weesu wuñ juróom-ñaar te juróom-ñaar boo koy xeelee lim bu néew la waaye teew seen tagg waa ngi fa bayot ba leen suñ door borom di tagg lu mu waxan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa sidnaahum hudda lu leen ko mayan wa rabatna ala qulubihim isqaamu la ñu waxan mooy fa xaalu rabbuna rabbu samawati wal ardi lan nadduwa min dunihi ilahan la xadxul naa isan satata foofee ashaabul kahfi tegan seen tànk ñi ànd nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg fa seen tànk ñi ànd nag Serigne Touba teg fa Serigne seen tànk foofee rek laa leen di sant ngeen teg fa seen tànk te xam ne néewug mbooloo téewut a sottal lu bari ndax daray lislaam sottewut ci ak ci mbooloo dañuy wax ne maanaam lépp loo xam ne sott na ci kaw suuf rek ci ndaw la sottee kon waxtu wu nekk néewub lim bi bu mu tee li ngeen jàppal ngeen jàpp ko ngir fa ndigal la jóge ki leen ko digaloon mooy ki nga xam ne moo fi toog toogaayu sëriñ Touba tey ci waxtu wi te dañuy wax ni maanaam doomu aadama yi ala kulli haalin fokk ñu yëngu ci dara benn ñuy yëngu ci lu baax wala ñu yëngu ca safaan ba bu ñu àndee lu ñu bëgg a taxawal man koo taxawal dañ koy misaal ci ay waaraam bu fekkente ni bii dañoo xàjjeeku am na loo xam ne waxtu wu nekk njaayeen yaa ngi koy soxla waaye du ko man ndax benn baaraam boo xam ne bu xàjjeekoon mën a dànk moom amut waaye juróom yi bu ñu dànkee dana dëgër bu ñu téyee bu ñu jàppee dana dëgër kon dañuy joxe misaal ci ne maanaam juróomi nit ñoo xam ne ànd nañ te ànd gëri dëgg lépp loo xam ne bëgg nañ koo taxawal dinañ ko taxawal kon loolu laa leen doon fàttali yéen ñi nga xam ne yéenay taxawal bis bi di leen ñaanal sunu borom ngeen gën koo man ñu di ko ànd ak yéen waxtu bu nekk te lépp loo xam ne def nañ ko ci sunu borom nungul ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di jéggal waxtu bu nekk nag jërë ngeen jëf